nag weesu lii muy def nii di jël ay rakku Mouhamed Niang ñoo xamante ni yow leer na la yow problème mu biir kër jàmbur loolu soo yoon nekku ci mais fi mu ne nii moom léegi ay ex femme Mouhamed Niang ngi noonu ba ci ñoom ba ci ñoom ñu nga xamante ni amee ñang tàggalikoog naa ak ñoom ñu mhm. ngi duggante ak ñoom mhm. te loolu pour man du yëfi góor mhm. góor da ngay def yëfi góor Tawfekh nag amee ñang ci boppam du moom mooy génn di am lu muy wax ak moom ñun ñii ñun ñoo pare pour moom ñun ñoo taxaw pour jàkkaarloo ak moom barki Serigne Saliou Mbacke te lépp luñ ci bañu ñoom ñun bañuñu ko ci. jërë ngeen jëf ami cher téléspectateur people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen ziar ci weer wi ñu nekk muy weeru safar rawatina ci bés bi nga xam ne moom la ñu génn muy màggalu Touba di ñaan lépp loo xam ni jàng nañ ko fa ci ay xasida ci ay kaamil. ci ay cant yàlla na ko sunu borom ful mu doon ay ngëneel wasaare ko fi nga xamante ni mooy sunu réew mi di sunu gaal euh, ñu ngi leen di nuy bu baax a baax tey nag ñu am mbégte ci dalal koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci yoon bi waaye kenn dootu ko présenté ci li muy def waaye ku ko xam-xam it digganteem ak Mouhamed Niang sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre fii ci People 221. waaw jërëjëf ñu ngi lay siyaar bu baax euh, di amaan mbégte bu baax di wax jërëjëfat Serigne Saliou jërëjëfat Serigne Saliou euh, pour ñi nga xamante ni xamuñu ñu ñooy ngañ géey mu Serigne Saliou lañ ñuy wax di taalibeeb Serigne Saliou di nongob Serigne Saliou euh, ba tax na daal ñu ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. Mm-hmm. di la nuy yow mi nga xamante ni ñu ngi jàkkaaroo ak yow. Mm-hmm. jërëjëf. ngañ naka ngeen dundee màggal gi noonu lañ ko doon waaje waaw màggal gi xanaa euh, santaat nañ ci Serigne Saliou bu baax. Mm-hmm. ndax ku ne xam na ni li Serigne Saliou daan wax naan ku sant ñu dolli la. Euh, ndolle li ñu ngi koy yëg bu baax tey it santaan nañ bu baax a baax ba demee ak jàmm dikk si jàmm ak salaam. Mm-hmm. waaw ba tax na mbégte mi moom koo xool rek yaa ngi gis mbégte ci moom. Mm-hmm. ci li xew Touba. Mm-hmm. ba tax na dañuy ñaanal rek incha allahu rabbi ñu fekkee ko ay déwéni déwén. ci barke Serigne Saliou Mbacke. kenn bañ a manqué. mel ni dañuy gis ni sa màggalu Touba chaque année soññe yi day gën a bari. mais chaque année rek du ñàkk ñi nga xamante ne ay defkatu ñaawteef lañu. chaque jour dañuy ñëw di assister mën naa ci cité li nga xamante ni ñu ngi gis ay xale yu jigéen yu ñu wane woon ñuy jël ay chicha di ko tux ci biir Touba est-ce que war naa dem Touba di yóbbu loolu. <coughs> waaw loolu man pour man sax ñooñu jàppee mu leen ay taalibe Serigne Touba. Hmm. ndax mën naa ni bon moom. bu hmm. xasee ba ne ci yow. Hmm. Euh, foo dem bu bu koy nit ñi di gis ci yow sax yow doo xam lu koy génne. ba tax na Touba moom borom ñàkk na ko. te képp koo xam ne yaa ngi ñëw ngir yàq. wala ngir indi fa loo xam ne safaan bala ci sa kaw lay këpp. ba tax na ñooñu nga xamante ne ñi ngi def loolu euh, euh, nañ xam ne ñoom ak sëriñ bi la. waaw nañ xam ne ñoom ak sëriñ bi la ba tax na Touba moom borom ñagal na ko boppam kenn mënu koo yàq kenn mënu faa indi dara loo xamante ni ñu ni ko def ba ci yenn autorités yi wala yenn kilifa yi nekk biir Touba da gis dañu am sinapkat am ñoo xam ne dañ leen jël uniquement ñu leen di waxal ci lu baax lu toll ni màggalu sëriñ Touba nga xamante ne liñ ci tàmm woon mooy jàng alxuraan jàng xasida yaatal gan ñi. waaw laaj nga lu am solo. waaw laaj nga lu loo xamante ne nii faaw ñu wax ci. ndax màggal Touba li ko tax a jug. Serigne Touba daf ni kaay leen santale ma yàlla. Serigne Touba loolu la woote. wootewul puukare. solo gi nag dëgg la ci la am na ku ma dégg mu naan màggal du ay sañseek mais tamit solo gi moom ci la. dëgg la ndax li gaar na wax ni mënoo togg sa ñam bu neex. Mhm. ba pare sol yére bu tilim di ko joxe. kan koy jox du ko ñemee. Mhm. waaye màggal léegi dama seetlu nit ñi léegi maanaam ak puukare maanaam waneetuñu sëriñ bi ba ci ñiy way sëriñ bi ñiy way way ci màggal gi mhm. wayeetuñu xam-xam liy dayob màggal gi wayeetuñ ko mhm. léegi tiktok la ñuy wayal waaw mhm. tiktok la ñuy wayal wala yaa ngi way way boo xam ne yaa ngi gaaral sa morom boo xamante ni mi ngi dend ak yow ak dal wala ku ci nekk yaa ngi xool sa morom lan lan lay sol jouru màggal léegi nit ñi maanaam noonu la ñuy doxee ci màggal te sëñ bi wootewul loolu dëgg la te ñiy def ñi nga xamante ni ñi ngi génne son pour tiktok wayuñu xam a bu màggal jàllee seen way du am continue dëgg la mais ñi nga xamante ni xam-xam la ñuy way ak li tax a jug màggal ñoo mhm. ñooñu la seen way di am continue dëgg la seetlu li ma lay wax bu baax bu baax mais ñi nga xamante ni ñi ngi way ndax TikTok heure bu mhm. màggal jàllee seen way fa lay yem mhm. du am continue waaw ba tax na gaa yi nañ gën a xamaat li tax màggal jug ak liy dayoog màggal màggal du pour parparloo du pour defante du pour nii laa mel wala nee laa mel nañu wane jëmmi sëriñ bi nga xamante ni nii mhm. euh, moom lañuy sant ndax dañu kaay leen sant la ma yàlla waxul kaay leen sant ma mhm. waxul kaay leen wane sama jëmm ji mhm. te bu ko neexoon wax ko ndax moo ñu yilif moo ñu moom te bu ko bu ko waxoon tamit dañ koy def mais dañu kaay leen sant la ma yàlla kon xam-xam boobu na koy gaay di doxee te bàyyi par par loogi ak ñi nga xamante ni nii ñi ngi génne ay way parce que booy xool euh, man dee fois nit ma ngañ lan moo tax màggal doo génne way man la màggal dama cee seetlu kën yi ñu bëri ñuy génne way dañuy génne way pour ñi ñi xam leen. Mhm. génneetuñu way ngir wane jëmmi sëriñ bi ak wax xam-xam ci màggal yi mhm. mais dañuy génne way ngir ñi ñi xam leen. Mhm. man doxewu ma noonu. su ma demee bay bind way ci ci ci màggal damay way ci ci màggal. wax li tax a jug màggal. wax ci sëriñ bi. mais gars yi léegi defatuñu loolu. Mhm. kon ba tax na. Mhm. Euh, may soññewaat rek ci loolu gars yi gën a xamaar li tax a jug màggal. Mhm. voilà mu ngi noonu ngañ bu Serigne Saliou euh, fi may ñëw nag ngañ ma fàttali leen ni ku ko xam-xam digganteem ak ki nga xamante ne mooy Mouhamed Niang aw la ba pare ñaareel ba nekk gorom ngañ ana Mouhamed. Mouhamed démb rek ñu ngi doon déggante. démb mi ngi Touba waaw Touba lañ ko bàyyi. Mhm. Mhm. mu ngi ci jàmm baax. mais mais ñu gis ni par exemple màggal chaque année. Mhm. ba tey dama ñëw ci challenge bi. Mouhamed Niang da daan bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jël <coughs> meilleur challenge. donte moom jubluwu ci loolu. mais ñu gis ni depuis que woy boobu noonu muy masaalikul jinaan bi. ba tey déggatuñ Mouhamed Niang ci lan la nekk ñi naan dañ koo jàpp mystiquement xamatul fan la jëm mën nga ñu cee di lay leeral. waaw loolu dañ ciy leeral. parce que buñ ci waxee yoon la ñu wax ci. Mhm. ndax wax nga ko léegi ñoo nekk ci ginnaam di ko aw. Mhm. beneen bi ci tegu ñuy goroom. Mhm. di denc raqam kon yoon la buñ ci waxee kenn du ni lan moo tax ngañ mi di ci wax. Euh, li nga wax léegi mooy Mouhamed Niang ba mu woyee Masaalikul Jinaan ba léegi ñii neen dañ ko jàpp ci musique wala nangam. Euh, ma lay wax ni kooku Serigne Saliou moo ko moo ko ñaanal. moo def ci moom li muy def ci moom ba tax kenn mënul ci moom dara Mouhamed Niang yaakaar naa ne bu doon ay wax rek moo koy arrêté wala ay wax rek moo koy tax a bàyyi. Mm-hmm. kon bàyyi na bu yàgg te ñi nga xamante ne nii fekke nañu démb ak li xewoon ci digganteem duma ci xóot xam nañ la xam nañ li may wax. Mm-hmm. bu doon yàqule rek foofu lay yàqule. Mm-hmm. kon ñi nga xamante ni nii ñoo mujjee ñëw. ñooñu du ñoom ñoo koy jàpp ci musique. Euh, te beneen bi ci tegu mooy. ku gis way yu bees yi génn nga xamante ni way yi album la. du du way yi rek. album la def. Euh, way yi rek génn. amul kenn koy dégg ci waykat yi ku dul Mouhamed Niang Mouhamed Niang hmm. parce que mooy li ma la wax sànq Mouhamed Niang buy bind way hmm. sëriñ bi lay xalaat ci sëriñ bi lay lay lay lay sukkandiku di bind ay way sukkandikuwul ci ay gaaral oh. wala ngir wax nit lu ko naqari hmm. mooy waral saa bu génnee way wayam di am continue Mouhamed Niang carrière la am. dëgg la Mouhamed Niang toppul succès carrière la am. Mhm. gars yu ci bëri nag ñoom succès lañ topp mooy. Mhm. li ma la wax sànq wayal TikTok. wala ngir way li ngir way ñooñu seen way du am continue mhm. léegi liy waral Mouhamed Niang boo jëlee way daawam. nga déglu ko mu mel ni tey. mooy wayam daa am xam-xam. parole yu riis. kon kooku yaakaar naa ne amee ñang kenn dootu ko présenté fii ci àdduna kenn mësu koo jàpp ñun ñuy ànd ak moom xam nañu kenn mësu koo jàpp lu waxul dërëm waxu ko. Mhm. kon loolu mën naa ni coow li mënta ñàkk. Mhm. mu am. Mhm. ndax màggal gi ñi génne bari nañ. mais ay benn way rek lay jël di leen ko jox coow li di di di di kon am na ci rek. dëgg la day li ngay dégg nii yëpp day fank rek. li ci ginnaaw bis bu génnee fii. laneen lañ laneen lay na ci coow loolu noonu laay duggee ñu gis ni ba tey. Euh, man li may wax mooy musiquement bi ba tey dañu gis ni Mouhamed Niang màggal gi passé Euh, am na ay cant yoo xamante ni dañ ko annulé. ci ay kanamu soppeem. mu doonoon loo xam ne ñu bari nga ko doon mettitlu mën nga ñëw di la ay leeral ci cant googu. waaw cant googu euh, cant googu chaque année mën naa ni cant gi bi ñu ko njëkkee def. Mhm. buntu kër Mouhamed Niang lañ ko defee woon. Mhm. xaju fa soppe yi daan ni cant gi nañ ko génne. Mhm. ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci staff bi ndax xajatul woon ci ruq ba fa lañ ko njëkk defee. ñu génne ko di ko defee foofu mbooloo mi yëpp di fa teew. te cant gi li tax ñu koy def defuñu ko ngir puukare wala ngir defante. Mm-hmm. ñi nga xamante ni nii bu ñu gisee Mouhamed Niang màggal ba màggal lañu koy gis. Mm-hmm. ñooñu ñoo tax ñuy def cant gi. Mm-hmm. mais du ent du dañ koo def ngir bëgg ci xaalis wala defuñu ko ngir entrée. yaa ngi dégg. du lañ koo def ngir dara. ndax euh, mën naa ni. cant gi li tax ñu koy def mooy li ma sànq rek mooy ñi nga xam ne ñu ngi jege dëkk bu dëkk te heure bu ñu ñëwee màggal. du ñu ñibbi ndax cant gi la ñuy xaar. waaye cant googu bu amee échec bu mu jaaxal kenn ndax Mouhamed Niang segam grand théâtre nga xamante ne ni moom lay organiser di ci def ay millions. Hmm. grand théâtre du ndaw. ku hmm. koy organiser di ci def ay millions loolu cantu cantu mbedd jaaxalu la. Hmm. li ci am nag muy problème mu sono beeg lumière yeeg yooyu yëpp ay dogal la ndax Mouhamed Niang ci boppam. màggal day bëri ay programme Touba gi yëpp dañ koy engagé ay programme muy dem ci dal ñun ba ci ba ci jour màggal du ñu noppalu ba ci lendemain màggal du ñu noppalu mm-hmm. sant ñu woon kenn ku dul Serigne Saliou mm-hmm. te jàpp naa ne ñuy sant Serigne Saliou yow ngay sant Serigne Saliou sama cant am échec am lu ci lu ci lu ci am faay nga may reetaan ah man jàpp naa ni man pour man kon bokkuñu ki doon sant mm-hmm. mais bu fekkee ñoo bokk ki ñu doon sant sama cant am ay dogal yu ci tàbbi lamp ya fay wala courant yi coupé ngay wër ci dëkk bi fu ne nga fay wër di ndamu ak di ñaawal ak di kon man gëmuma ni mbokk taalibe gi ñuy woote ak gëm sëriñ bi ñuy woote dëgg la. mais loolu mais loolu loolu loolu kan nga joxoñ baaraamu dafa mel ni yow dafa am ñoo joxoñ baaraamu ni ñoo ko def. waaw. waaw ba ba tey foofu noonu sax mu mel ni cant googu noonu. Mhm. dafa nekkoon concurrence entre Mouhamed Niang ak Tawfekh Mbaye. Mhm. cant googu amul amul concurrence ndax diggante boobu ngay wax Tawfekh ak Mouhamed Niang loolu concurrence amu ci. Mhm. parce que Mouhamed Niang daa am ñu ñu ne d' accord mais nag man ci li ma dégg. waaw tawféex dafa tànt Mouhamed ñaar tànt mais macha allah tawféex bi mu ne nder ñëpp dañoo bàyyi tawféex ñëpp dañoo bàyyi Mouhamed dem tawféex. waaw loolu ñu ngi ko koy yéene te bu déwénee na yàlla na mhm. mhm. tànt ay tànti tànt mais dama ni. Mhm. ñun suñu cant. du ma ne sax mën naa ne suñu cant sax laay wax ndax moom Serigne Saliou la doon sant. ñu ne Serigne Saliou lañ doon sant. waaw bu suñu cant amee loo xamante ni am na lu ci lu ci lu am ay dogalu ci taabit mu fay mhm. wala lamp ya nangam ak nangam mhm. léegi ña ña ñëwoon ci cant ga Serigne Saliou mu leen yëkkati woon mhm. mais bu ñu déggee ne tawfeex day sant Serigne Saliou fee mais bu ñu ko demee garaaw mais ñoom après maam niñ ko niñ ko jëlee mel ni lu ciy ndamu wala dara wala ñoom mel ni dañoo kontaan ci ñun suñu cant ñàkk am gi mu ñàkk am te ñun wax dëgg yàlla ñun yàgg nañoo woote ay cant muy am parce que d'après def na benn sortie bi mu defee benn sortie mu juloon polémique bu bëri ci seen biir ñi nekkoon ak Mouhamed Niang commencé di xuloo ak Mouhamed Niang waaw loolu yëpp moom moom mooy doxee noonu ci xelu amet mooy day xool ay nitu amet ñi nga xamante ni jigéen nañ ko mm-hmm. mu leen di tudd ci ay ci ay ci ay kàddoom di leen jaxase di leen jaxase d'accord te loolu pour man du lu rafet mm-hmm. du lu rafet ndax euh, yow wut nga nit ki côté bu ne jotoo ko amet ñang Tawfekh Mbaye wut na ko ci côté bu ne jotu ko mm-hmm. sëñ ba euh, cant cant cant màggal daaw fi la fi jot cant màggal daaw. Mm-hmm. amee ña dugg ci biir baas bi xaw ma daawaati géej su ma mm-hmm. mu dugg ci biir baas bi. doo fee mbaay génn baas bi. kon coow yàgg na. yàgg na mais amee ña maanaam toppul tawféex ci lim koy woo. ci mm-hmm. concurrent bi mu koy woo parce que du moog moom. comprendre nga. bu dee ay way moo ko ko dàq téeméeri junni yoon. du damay wax nii damay ànd ak moom. nii rek tawféex. dégg déggoo ma de dama ne bu dee ay way amee ñang hmm. amul ku koy jaaxal ñun ñii laa la wax moom jaaxalu ma ci way man. Tawfekh Mbaye waaw man man ngay hmm. hmm. jaaxalu ma ci way de. yaa ngi dégg kon waxuma waxi amee ñang ci ay cadre way waxuma loolu. mais dama baas bi màggal Tawfekh Mbaye génn baas bi lan moo tax muy génn baas bi. da ba mu ko defee sëñ bi daal dal ci kaw ba moom mu tourné waat dem di jégalu sëñ Saalum ndigal Thioune. da jàpp ni jaloux moo tax. jaloux tamit jàpp ma ni loolu ak gëm sëñ bi loolu bokk na ci. Mhm. parce que lii ñun li ñu nekk nii diina la. Mhm. lii ñuy def nii di par parloo maanaam waykatu àdduna yi ñi nga xam ne ñooy def musique. Mhm. ci ñooñu la jekkoon te ñooñu defuñu ko. yaa ngi dégg. mais ñun ñoo bokk li ñuy way bokk Serigne Saliou mi ñuy way. mais ci biir cant googu noonu ñu gis ni ki nga xamante ne mooy rakk Mouhamed Niang xam nga affaire li tax mu naqaree li mooy. rakk Mouhamed Niang di Aïssa Niang. Ah. dañu la wax ni Tawfekh bu Aïssa Niang Assane Niang rakk ko amee Niang bu mu bokkal ndey ak baay mm-hmm. su ñëwee ci cantam mm-hmm. doxee ni mu doxe noonu mm-hmm. moom war na tiit xam ne kii li muy def gëmu ko man su ma jotee woon ak yow sama raq ñëw ci yow wala nga xewle dara moom mu ñëw ci yow di la dooleel yow war ngaa tiit ci sama raq jooju te xam ne li muy def gëmu ko Assane Niang loolu mu def gëmu ko te Tawfekh moo la gën a xam ne Assane Niang li mu def gëmu ko yaa ngi dégg gëmul loolu mu def da koo def ngir naqara ngir ngir jàpp ni bu defee loolu Ameth Niang dina am ko naqari mais loolu ñoom la loolu ñoom la mais dama la bëgg a xam ne Tawfekh Mbaye daf ci boppam yi muy def nii yëpp mhm. ah mhm. moom moo koy def mais du amet Niang mësu leen a gis interview bu amet Niang def tudd Tawfekh Mbaye mhm. mës na am dem leen tàppe mais nag interview Tawfekh bi passé tamit dafa demoon di tudd sax ay staffu Mouhamed ñaa ñoo xam ne dañu ñëw sax di ko dooleel loolu dama ciy ñëw moo tax ma ni la Ameth Niang mësu koo dégg mu toog ñu dégg ko micro mu tudd ni diw lii diw laa mhm. dem leen ci interview Tawfekh Mbaye moom rek ngeen di dégg mhm. mu naan amen ñang lii amen ñang laa mhm. nit ki nag mënoo yow toog bu ñu la dëkkee micro nga wax sa wax ju ñaaw ju la neex te boo bëggee dajeeg nit ki programme bëgg koo nuyu wala bëgg koo wan ni dama laa bëgg wala boo dajeeg ay awkatam wala dara bëgg leen a wan ni yow dama laa bëgg loolu mënta ne kan mooy def loolu Tawfekh waaw da moom day mbuba loo xam ne nii gëmu maanaam li muy def ci ci ci du doon benn. waaw te jàmm jàmm ji nag maanaam fi mu ne nii maanaam ñun ñu ngi ci doon bëgg sax ñun jàmm mais yëf yi lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru fi mu ne nii. mais mais mais mais attends. lu toll ni ay jànkatu xasida yéen ñëpp ngeen boole ku leen meññ muy Serigne Saliou. waaw nga jaar jaarale ngeen nekk ay cantaakul. waaw léegi nag bu affaire bi demee ba nar rek Real Barça nii doon guerre. tamit est-ce lool loolu noonu jotul tamit ñu woote benn réunion toog. waaw moo tax ma ne la loolu ñoom ñoo ko sooke ndax yéen leen ñoo gis ñun gis. ñun ñuy doo gis ñu taxaw di wax ñu ñuy dékk micro ñu ciy wax parce que xam la mhm. affaire dañoo dem ba sës d'accord te Mora moom ngay wax ci Mouhamed Niang la nekk mhm. la nekkoon di jël ay vidéo di topp Mouhamed Niang fu ne léegi yow nga def sa interview tudd ko ci maam yow loolu yaa ngi bëgg a dugg kër jàmbur mhm. jaxase ko dugg kër jàmbur nag weesuwul lii muy def nii di jël ay raqu Mouhamed Niang ñoo xamante ni yow leer na la yow problème biir kër jàmbur loolu sa yoon nekku ci mais fi mu ne nii moom léegi ay ex femme Mouhamed Niang waaw mi ngi noonu ba ci ñoom ba ci ñoom ñu nga xamante ni amee nañ tàggalikoo naa ak ñoom ñu mhm. ngi mi ngi mhm. mhm. da ngay def yëfi góor Tawfekh ci boppam du moom mooy génn di am lu muy wax ak moom ñun ñii ñun ñoo pare pour taxaw jàkkaarloo ak moom moom ñun ñoo taxaw pour jàkkaarloo ak moom barki Serigne Saliou Mbacke te lépp luñ ci bañu ñoom ñun bañuñu ko ci parce ñoom li ngay wax nii naan ay waykatu diine dëgg la ay waykatu diine lañ waaye nag saa man bu ma la toppee di la dóor pour fañ di la dóor pour fañ bu yàggee di nga fayu dëgg la <laughs> Sénégal nag xamuñu ku tooñ ku tooñ ku fayu la ñu xam mhm. léegi nag yëf yi daa mujjee dem nag ba kenn xamatu lu muy nduru mhm. ay ay ay ñoñam di estati di gaaral lu wax ju ñaaw ju ne ñu koy wax sax dégg naa sax am na ñoo xam ne ñoo dem ci cand Mohamed Ñaay dagg fii li mais garaawul garaawul parce que sëñ bi gis na lépp mhm. sëñ bi gis na lépp parce que ñun dañoo daw bay bëgg a dee nag fi ñuy gis na ñoo daw bay bëgg a dee te xolal mhm. lu nit di def gënooñu koo def mhm. bu dee yar mën nañ la ko won ba mu doy sëkk waaye bu dee man naa man fara naa ci yow boy ne am na benn kilifa gu leen mosoon a woo di leen jubóole mais dafa mel ni Mouhamed Niang moo moo moo accepté wul tawféex lu waral loolu mooy li ma la wax sànq saa waay man mënumaa toog buñ ma dékkee micro ma wax ci yow wax ju ñaaw te bu ma dajeeg yow ci mbooloo naan dama lay nuyu wala naan damay jéem a jubóog yow loolu yëfi naa féq la amel ñag nag lool la dul loolu la dul nangu ndax keroog ba ko waaja a waxee loolu dane ko boo ma dégloo soo ma dégloo mu ne ko ah bu nangoo def lii ma koy wax jubóo bi mu bëgg dina ko dina am mooy lan lan la bëgg moom muy lu ci ginnaawam déedéet déglu rek ndax amel ñag li mu naroon a wax waa ji da ko naroon ni ko interview yi nga xamante ni Tawfekh Mbaye jaar na fa yëpp ak yi nga xamante ni jaar na fa yëpp wax lu ñaaw nee na bu fa mënee jaaraat dindiwaat loolu noonu bu fa mënee jaaraat dindiwaat ko nee na amee ñang da nee na ma jubóog moom mhm. nee na bu fa jaaraatee dindi yooyu wax yooyu mu wax yëpp mhm. nee na loolu laa ko naroon a wax kon da nga jàpp ne wax yooyu ay sos la ay ay ay ay wax yu ñaaw la te loolu du du lu rafet mhm. mooy li ma la sànq amee ñang barki Seydina Mouhamed ku ko gën a maandu amul amee nag du wax ci waxi jàmbur ñun ñuy ànd ak moom di nekk ci ginnaaw otoom xam nañ ko du wax si waxi jàmbur foo ko gis mi ngi ak téléphone am sëgg mm-hmm. du wax ci kenn mm-hmm. léegi nag yow yow mi nga xam ne am nga jot ba chaque instant nga ameen ñang li laa te yow ameen ñang mosu leen koo gis mu mm-hmm. wax ci tawféex ni nangam wala lii mosu leen koo gis bu ngeen ko gisee wax leen ma bu ngeen ko gisee rek wax leen ma yéen ñii nga xam ne yéen a ngi liggéey ci bu ngeen ko gisee fu ameen ñang toogee naan tawféex lii wala tawféex laa wax leen ma ko. Mhm. waaw. Mhm. parce que affaire bi dafa garaaw garaaw boo xam ne comme li nga wax sànq dafa dem ba dafa dugg ci famille bi. loolu nag loolu nag moo moo séparé famille bi. waaw loolu nag moo waral wax ji loolu nag moo waral wax ji tey. Mhm. famille boobu nag mu bëgg a dugg lañ ko dul may. a dugg. parce que tawféex mbaay ñoom seen gëm sëriñ bi ñuy woote ñoom ñenn ñi ci bëri nag laa la wax. gëmuñu sëñ bi xamu lu ñu gëm. seen poos. seen poos la ñu gëm de gars yi ñu ci gëm sëñ sëñ Saliou mii ak sëñ Béthio mi ñuy wax mm-hmm. ñu ko ci gëm bëriwul di gars yi ñoom ñi may seetaan xamante nañu bu baax mm-hmm. ndax sëñ Béthio da daan toog ba ci yàgg di aj tëgg bi di aj way man taxaw naa jannatul maxwaa man Ousseynou Mangane ak keneen ak keneen moom Tawfekh Mbaye moom taxaw ci suñu biir mm-hmm. yaa ngi dégg mu ni amul aj way amul aj dara man fu ma dégg way fu ma fu ma gis fu ma woo ci way sëñ Saliou damay dem way te moom mi ngi woote gëm sëriñ bi est-ce que loolu ku ko wax kon gars yi a wax yaa ngi dégg. Mhm. li ñu xam dafa bari li ñu fekke dafa bari. Mhm. te incha allahu rabi lii ñu wax nii rek mhm. ab ab ab lu ñu coppati la rek. wax lu ko nii. barki Serigne Sall Mbacke mais li ñu fekke dafa bari. te ñun ñu ciy wax dañoo fekke lu bari. am nañu ñang waa booy bi da koo wut ci côté bu ne. Ah? da koo wut ci côté bu ne. waaw léegi nag dem na ba mënu koo am li waykat bi naan nit ki bu lay wut. jéem-jéem jotu la day xool fi nga ki la gën a jige mu jaare fa yàqal la léegi nag instant bi ci tànk yooyu la ne hmm. léegi nag ñun dañoo taxaw loolu duñ ko ko may hmm. parce que ñun ñi ñun ñii rek ay awakatu Mohamed Niang hmm. barki Serigne Saliou Mbacke billaahi wallaahi bu amee lu muy concurrence ci Amed Niang muy way ci dara nañ ñu baasal ñun ñu ñu teg ñu moom ñu baasal ñu mu taxaw ñu taxaw moom moom mooma di jéem a diirante mbagg Ameth Niang ñun xam nañu lépp li ko wayloo ak li tax muy telli telli ci kaw Ameth xam nañ ko kon da yaakaar ne moom li muy def nii lépp doy showbiz rien que mais diine ji mais mais diine diine ji nag moo dul loolu mhm. li ñun ñun li ñuy def diine la mhm. diina ji du loolu mhm. ñun du ñu ay du ñu ay waaleeg Sidi Diop ak nangam ak nangam ñun ay waykatu diine lañ mhm. dañoo war di doxee noonu mhm. léegi nag waa ji li mu bëgg mooy jaxasek Ameth Niang ak sénégalais yi mhm. te loolu ñun duñ ko seetaan te Ameth Niang fii ba ilaa yow mi din du ngeen ko mës a gis mu téye micro naan day tontu Tawfekh Mbaye ñun ñooy jàkkaarloo ak moom nag cee saafu Ameth Niang am na ñoo xam ne ñoom nee nañ Mouhamed Niang taxul ñu fi toog keneen taxul ñu fi toog ñoom liggéey moo leen tax a jóg ku leen woo dañuy dem waaw liggéey moo leen tax a jóg ku leen woo dañuy dem loolu am nañ ci droit mais man du ma du ma du ma du ma du ma nangu lépp luy xew sama biir néeg nga koy fekke di waxtaan ak yow sama biir ngay ngay ngay ngay dégg loolu yëpp di xam ci man sama biir ak biti yëpp am koo xamante ni tey ji bu ñu ko joxoon paaka mu rendi ma yow ngay dem di séq ak kooku dara oh. su ma neexee ma génn la sama sama groupe dëgg la amee ña ngi am na droit moom bu gisee koo xamante ni nii day ànd koo xamante ni nii suñ ko joxoon paaka tey mu tër ko rendi ko man ma gis la ci kooku mm-hmm. barki Serigne Touba Mbacke doo tegaat tànk tànk sama kër mm-hmm. am na ci droit. te waa ji nag moom fi mu ne fi muy dox mooy di xool ay nitu amet képp koo xam ne nit nitu amet nga mu dem dugg fa fexe ba duggante ak yow. Mm-hmm. ci loolu lay dox. Mm-hmm. mais amet ñang li muy dajeeg baas tawféex sax bariwul ñun li ñuy daje programme ñoom moom bariwul. Mm-hmm. kon ñoom ñaar bokkunu jëmukaay bokkunu yoon. bokkunu yoon. kon man jàpp naa ne gars yi li leen metti amet ñang ren dafa sanc këram këru boppam. man pour man damaa jàpp ni loolu moo leen metti d'accord te ñee dañoo walyaan ren daa sañ ci këru boppam xam nga chaque année da daan day kër kër lay ne. waaw waaye fexe na ba kër papaam def na ko nam mu ko war a def ba bu tawatee dootoo fi gis luy senn wala dara. Mm-hmm. fexe na ba def fa lam fa war a def. Mm-hmm. te pareegu ca. Mm-hmm. waaye ren yàlla daa dogal mu am këru boppam sanc te ku nekk loolu ngay ñaan yàlla. dëgg la man ñang ren këru boppam la daal sañc waaye tëréewul daa jënd nag yóbbu kër baayam kër baay ñang ndeysaan jënd ay con ay condiment ay fruits ba mu koy yóbbu ñoo ànd. ba mu yóbbu fruits ñoo ànd. Mhm. laataa muy defal boppam. daa def kër baayam ba pare ba mu fees dell. mu doog a def kër këru boppam bi mu doon sanc. dëgg la kon gars yi kon mayul mayul mayul kenn luñ ko jamee. Mhm. gars yi nag damaa jàpp ni këram googu nga xamante ni nii sanc na ko di di di ñaan yàlla déwén mu mel na neen. Mhm. te boo gisee plan bi di nga xam ni a ah, amel ña nga ko tëddul di nelaw rek. dama yaakaar nag loolu moo leen metti waaye nag may wax sénégalais yi bu leen kenn bu leen kenn dugg seen xel yi amet Niang defaru ko Serigne Saliou li mu wax démb ni Serigne Saliou moo tifli sama gémmiñ mm-hmm. loolu du lu ndaw mm-hmm. du lu ndaw te ku ne bëggoon ko ko am mm-hmm. kon may wax ni rek ni ko ni ko yàlla def nañ ko ko def buñ ko defee rek dinañ noppalu barki Serigne Saliou Mbacké mais tey est-ce que tamit jàppoo ne ku ci mel ni seen kilifa yéen ñëpp muy Serigne Saliou Thioune bu dégloo lii bu leen woowee pour teg leen ñoom ñaar jàmm am ci diggante bi dinañ ko d'accord yéen ñi nga xam ne yéenay côté Mouhamed Niang. ba xam ñun dinañ d'accord bu sëñ bi wootee. pour ngeen pour mettre leen ngeen toog jàmm ak salaam am. bañ booy leen benn tànt ngi ñu def diwo parce loolu soppee dañ koy nam daal <laughs> noppee dañ koy nam daal. waaw xam nga xam nga diggante amee ña nga tawféex. Hmm. diggante amee ña nga tawféex. moo tax man la concurrence amu ci. amee ña doxeewul concurrence digganteem ak tawféex. tawféex moom mooy médiatiser. Hmm. mooy médiatiser que Ameth Niang. mais léegi bu ngeen woowee yéen pare ngeen fekk ko pour ngeen ñëw ngeen toog def benn table waxtaan. loolu Ameth ci moom lay moom ci moom lay dépendre ndax moom mooy kilifa gi. dëgg la waaye ñun dañoo daw ba sonn nag dañoo daw ba sonn. waaw mhm. fi ne nii nag dañoo sës. léegi nag li ci des mooy. Mhm. ñu ak ñoom la. d'accord ci lépp nag ci way ci lépp. Mhm. barki Serigne Saliou Mbacke ci lépp nag. ñi ñuy seetaan xam nañ kuy ngañ xam nañu kuy ngañ xam nañu kuy ësenu xam nañu kuy kaneen ak kaneen xam nañu bu baax mm. xam nañu tëlewunu way te barki Serigne Sall mooy li ma la sànq balaa ñoo jot ci amen ñang dañuy jaar ci ñun ba pare mm-hmm. ndax du lu ñu dàq dëgg euh, mu ngi noonu yéen ñi nga xam ne yéen nañu doon suivre fii ci People 221 waxtaan bi neex na trop jublu ci dara nag pour indi li nga xamante mooy ay leeral parce que yonent bi moo ne af su salaam baynakum si xalaat jàmm seen biir comme tawfeex fii la waxee woon sunu kër ah mu jur polémique ñun tamit c'est normal ñu seeta ñi nga xamante ne ñooy waa kër Mouhamed Niang indi nañu ay leeral mais lépp loo xam ne mën nañ ko ci dinañ ko dox pour tànku jàmm ak salaam parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar lan ngay tàggatoo ñu lay suivre. waaw li may tàggatoo mooy euh, di wax ni rek euh, gàmm gi lañ jub nañu màggal gi gàmm gi lañ jub Euh, di jox ñëpp rek rendez-vous allah fan yu néew am na son bu ñu war a génne way ci Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. Euh, ñu war a def clip bi. balaa balaa ay fan yu néew di ngeen gis clip bi incha allah. d'accord euh, waaye li ci des mooy comme ñun ñun liggéey la xam. Mhm. xamuñu ay wax mhm. xamuñu parparloo. Mhm. xamala la ñuy def. way lu neex. génne ko soppe yi daal loolu la xam ba tax na ñu ngi jox ñëpp rendez-vous incha fan yu néew. ak ngañ gay mu sëñ Saaliw. benn son bu mu way yeneen bi. war koo génne ci gàmm gi incha allahu rabbi rendez-vous bi ñu leen di joxaat mooy le 12 octobre bi Sorano incha allah. sargal Cheikh Amar. dañ ci ànd ak incha allahu rabbi mm-hmm. Mouhamed Niang mm-hmm. moo koy def foofee ca Sorano ñu mm-hmm. ciy jox ñëpp incha allah dig daje waaw ah, di leen wax ne santaan sëriñ bu baax di wax ne lépp loo xamante ni nii dëng na ci nañ xam ni eh, suñu suñu ñàkk a matadi la waaye jubluwuñ ci dara lu dul leeral rek loolu rek lañ ci jubloon ba tax na ñu ngi jéggaluwaat bu baax eh, di santaat sëriñ Saliou Mbacké bu baax a baax jërëjëf voilà gars yi mu ngi noonu kontaan nañ trop euh, parce que c'est normal Mouhamed Niang bu sante ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou di rendre hommage nga xamante ni mooy euh, Cheikh Amar loolu jaadu na. Mm. vraiment kon ñu ngi leen ni tàggu. Mm. ñuy waajal na gàmm gi. gàmm gi xam naa ne ñu dalal. gàmm gi dañ koy def spécial plateau. borom bés benn toll. incha allah kooku nga xamante ni mooy laylatul mawdul lazi kaana li diinin. Mhm. li sururun bi yawmihi wa ziha. Mhm. wa tawalat bi firal hawaati fi wal xar. macha allah wuli dal Mustafa wa xaqal hada. <laughs> non dañ koy yemale fii. waaw dañ jël spécial plateau ñu waxtaan. boobay dàq. ñu gërëm ki nga xamante moo ñu dalal borom salon borom poroxaan. Mhm. bu dalalee ngañ fii. jaadu na muy borom sanel a moom turam turam moo ko njëkk a wuyu mhm. ndax mën naa ne loolu yombul nit xaj nga ñëw rek mu xajal la xamul la xamoo ko mu xajal la waaye eh, ba mu tuddee maam jaara la suñu xel gën a dal ci loolu ba tax na ñu ngi koy ñaanal salon bi mhm. mu doon ay salon yu salon ci barkeb Serigne Saliou Mbacké te ñun nag Serigne Saliou dañoo gërëm de mhm. dañ koo ba mu gërëm ñu lu ñu ñaan te muy dëgg ci ñun day am maa ngi koy ñaanal ci barkeb Serigne Saliou Mbacké salon bi doon ay salon di ngeen gis incha allahu rabbi jërë ngeen jëf